maman maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay. tur bi naka la. Adja Aïda Cissé. Adja Aïda lan nga ci xaadim mi nga xamante ne nii euh, tey moom moo fi daal di bàyyi ko. xaadim yaayam la man maay magu yaayam. d'accord gannaaw ba ñu la jaalee euh, seen doom ji nga xamante nii moom moo fi dem ci demin ku metti gi bokk ak yenn euh, tiis bi nga xam ne moo dal ci seen kaw loolu nag sabab fi suñu ay tànk gannaaw ba ñu jógee ci plage bi ngir jàppale leen ci wër bi waaye tamit taataan ay euh, kàddu yu ci seen doom ji yan kàddu yu rek nga ñu mën a jox tey ci seen doom ji nga xam ne moom moo fi jóge mm. suñu doom ji de moom ni mel sax de nettali ko de ku ciy nettali sax dangay kontaan ndax xale bu yaru la taalibe la nag moom taalibe la Baay Faal la xale bu bëgg mbokk famille yaayam da cee topp ba mu jeex famille baayam mu topp ci ba mu jeex ay jàmbur noonu man mii yaayam moo topp ci man waaye nag xale bi toujours bu jot ma nga sunu kër toujours bu jot ba dimanche passé sama kër sama kër yaay ak sama kër bi may sëy sorewul waane fa lay yendu ba ngoon dimaas bale paase waaw waaw fa la toog ñëw sama kër yaay albutiku dox ñëw sama kër ñu toog ba ay vingt deux heures am sama benn kii bu ma doon gunge ma ñëw fekk ko sama kër yaay mu toog ci kur bi ma ne ko waaye yow sëñ bi mu naa ma ne ko yow sëñ bi yow dama ko ñibbeekoo ba tey mu ne ma ñibbeeku ma damay xaar tuuti mu ne ko bàyyi dox guddi dox guddi paaxul jamono ji neexul mu ne ma dama fay jaaraat sax garaaw dinaa fa jaar léegi ma ne ko waaw ma dem keroog jooju yàllaa ne woon duñu gisante waa dañ doon tàggu fa la yendu 10 heures la ñëw kër ga ba 23 heures ma nga sunu kër toog ma ne ko boo ko tee nga fanaan mu ne ah garaawul damay dem ndax damay liggéey su seen usine tamit noonu la fa mel. moom daal jàmbur yeeg ñëpp koñ baa ngi nii tey kenn desul kenn desul xam nga baax moo tax seen usine ba muy liggéeyee kenn liggéeyul démb personnel bi kenn liggéeyul xale bi ma nga xel ko lu sëñ bi woote ma nga fa ma nga ca góob ba ma nga ca bees ba da koy jaral a bàyyi une semaine liggéeyam dem ci ci woote ba waaw bu xew amee mooy segg kafay ma ngay raxas ma ngay bale ma ngay def tuuti tal sol yére Touba noonu yàlla daal moo ñu ko joxoon jël na ko waaw ñoo ngi ñaan daal yi nuy ñaan yàlla niital ñu ko ba nu jël ko jébbal ko eh, sëñ tuuba sëñ Touba jiital ko jéggalal ñu joxtal ñu ko Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu joxal ñu ko sunu borom daal loolu rek la nuy ñaan daal yàlla niital ñu ko rek ba ñu mën ko jot defar ko yóbbu ko ñun daal loolu rek la ñuy ñaan. naka ngeen yëgee rek ne seen doom ji daal dinay dem ci géej gi ba daal di cay des. Ah, man daal betteel rek ndax man sama sama taaw danoo toog ba ci yàgg papaam woo ma ne ma ana ah mbay ma ne ko mbay de soriwul xam naa tuuti ma woo ko mën ne ko mbay foo ne mu ne ma xaadim de lan ne woon mook ñoom seen waa usine la àndaloon football yi léegi nag ñu ne dañu am problème looloo tax ma ne xaaral kon ma dem ñu wooñu ñu dem fa ma ne ko ah mu ne ma waaw waane eggu ma sax noonu bi mu waxee loolu ma ne ko ah ma daal di na ko waaw kon ba ci kanam ma toog ma ne xam naa ne boo demee dañ doon xeex rek boo demee loolu la ma toogaat ba ci kanam woo ko ma ne ko yegg ngeen mu ne ma yegg nañu papaam sax ñëw na mi ne papaam ñëw na ma ne ah garaawa ma coupé ma ne ah ma ne sama benn set comme comme que de xam naa papaam ñëw na te am de tenue la woon ba retraité mën naa am bu demee bu dee xam naa ne boo demee dañ doon histoire naa ne bu demee dina ko régler waaw léegi ñu toog ma bàyyi noonu ñu toog buñ toogee ba ci kanam léegi sama borom kër ne ma man maa ngi tëdd de ma ne ko waa ma daadi toog si saal ma toog ba si yàgg rek sama borom kër woo ma ne ma ayda ayda ayda ma ne ma daal di daw dem mu daal ne ma ayda ma ne ko ah mu ne ma ah yow de ndee waru laa jaaxal ma ne ko yow lu tax ngay wax loolu mu ne ma ah damaa xam ne yow uuf nga sa yaay bu ngaa gaañu say lox sa sa papa noonu nga uuf sa doom mu dee sa kon nag yow dee waru laa jaaxal ma ne ko yow wax ma rek li nga may wax mu ne ma ah mbay dem moo ne ma léegi xaadim dafa lab géeju Malika ma ne ko kon mbay nii la ma doon naxe mu ne mu ne ma daal moo ma woo léegi dafa ne ma woon sax du bu ma la ko wax ma ne ko nag loolu mënta ñàkk looy nëbb ba nëgg ni par force ñu wax ko waaw ndax dee kenn du ko nëbb waaw loolu la daal. yaay lan nga bi andi ma fii ma topp guddi gi ay ay kii laa fi si presque ay 23 heures passé na si lañ ma andee foofu fii. Mhm. lan nga yëg biñ la annoncé loolu ci koo xamante ne ni chaque jour mu ngi woon sa kër dimanche ngeen sama kër toujours mu ngi sama kër metti rek metti rek metti nag metti na trop ndax yaayam dafa topp si man fonk ma. Mhm. fonk ma te ngeej la dëkk de waan du toog une semaine boo xam ne ñëwul seet si ma mm-hmm. ndax xam ne ne man wéru ma waane toujours day ñëw di ma seet toujours fi mu nekk nii dimanche bi samedi bi samdi yaayam sama kër la yenn dimanche mu dee moom mm-hmm. loolu la sant yàlla rek nañ koy ñaan yàlla nañ ko yàlla feeñal ba ñu jël ko ba jébbal ko sunu borom ci darajay Seydina Muhammad te yàlla na ko xolam fay waaw waaw loolu rek la ñuy ñaan loolu la ñuy ñaan. maa lay fay maa lay fay maa fi. bi la. Ami Cissé. maman Ami Cissé lan nga ci xaadim mi nga xam ne tey moom moo fi daal di bàyyeekoo. xaadim maa yaayam ñoo bokk ndey ak baay. doom la sama doom la. gannaaw ba ñu la jaalee di bokk ak yow tiis bi yan kàddu seede rek nga ñu mën a jox tey ci sa doom ji nga xam ne moom moo fi daal di jóge. xam naa doom boo xam ne daal mënuñoo wax lépp daal doom boo xam ne macha allah macha allah. toppatoo na waajuram ba yaa def li muy def bëgg ay mbokkam man maa ngi dëkk Caaroy mooy kër gu mag gi wala yaayam jóge muy participer mais chaque weekend ma nga sama kër toppatoo ay rakam toppatoo ay magam ay doomu magam yaa ngi ne xale yaa ngi jooy boobu ba tey kenn mënu la consoler kenn ku disponible si ñëpp disponible si ay mbokkam ay xaritam ay lépp yàlla daal moo def li ko neex mu gël ko naka ngeen yëgee rek xibaar bi nekk ne seen doom daal dinay nay sangu ji place ba daal di lëpp. ñun daal lii lañ sa am maa sama sœur bi ñoo dendee kër nekk te sama doom bu góor bi magu xaadim bi woo na ko wax ko nouvelle bi bu ma ko woowee sama doom bu góor bu fekk ñoo toog mu ne ma dañuy dem benn am ko ñuy seeti te ñëw mu toog lu ba ay vingt deux heures et trente quelque gisuma ko ma ne jabaram yow diw yàgg na di mu ne ma yàgg na kañ. ma ne ko waxula fu mu jëm mu ne ma tàgguwu ma de ma ne ko ah mu ne ma waaw ak sama sœur bi ñoo dendee kër sama man si kër gu mag gi laa nekk tuuti rek mu ñëw ay 23 heures sore wuñ bi mu ñëwee ma taxaw ma toog ma ko yow looy wut si kër gi heure bi déjà guddi na muy jooy ma ne ko lan la mu ne dafa am lu xew te du jàmm ma ne ko lu xew du jàmm mooy lan mu ne ma xaadim moo de ma ne xaadim lu ko rey lu ko war a rey ma dafa lab nii la ñu yëgal nouvelle bi ak naqar te li gis li gën métti nag dañ koo jot gisagul suñ ko gisul sa xol yi géef ñu xam ci li mu nekk loolu rek mu ñu métti. depuis dimanche ba mu labee ba léegi yéen mbokk yi jotagu leen ci koor bi gisagu leen ko. ñu ngi def recherche yi frère am yi ñëpp xa dëkkandoo yi mbokk yi ñëpp a ngi si kii plage bi ñëpp a ngi si plage bi xale kenn yendootul sa kër ñi mu bokkal service ñi mu bokkal koñ ñi mu bokkal mbokkom parents maternel paternel ñëpp a ngi si plage bi. kenn amul jot wax dëgg yàlla lekkuñu naanu yàlla na ko yàlla nit lim gën naa gaakar ne sax xel la waaye ban taxawaay la amoon ci li nga xam ne moo di famille. macha allah taxaw na ci famille famille bu lu ñu xewlee su ma yeboo mooy organiser lépp alalam du ko boole kenn jàppale ñëpp disponible si ñëpp li ma la waxoon la rek nekk taalu bi tem dem ci sëñ Tuubaa ba jeex tàkk waaw lu xew ma nga si biir moom daal yàlla na ko yàlla lafal cet dimanche dimanche bee paase. sama kër la nekk ba 23h suba la fi ñëw ba 23h si guddi muy door a ñibbi da doon yóbbu ñaw tabaskeem ak yooyu incha allah. naa jënd ñawu tabaski ba di ko yóbbu si tayaram hmm, loolu la yàlla dogal. yan jikko wala yan qualité rek moo la gën a marqué ci sa doom ji nga xam ne moo fi jógee. yaru oyof disponible si ñëpp dimbale yaayam mu ngi bale mi ngi fóot mi ngi raxas te nag kenn du mer fu mu toog day animé rek waaw moo tax dinañu manqué ñun. dañu manqué trop waaw. ci yéen seen doom daal di génn àdduna dimaas ba tey gisu leen ko fi mu nekk nii denc ko ñaanal ko sax nekk na loo xamante ni problème metti na gisoo sa doom xamoo si lu mu nekk metti na léegi ñun ñu ko jurul dina metti si ñun rawatina yaam ji ko sukk jur ko metti na metti na daal metti na daal metti na. yaa booy ñu ngi la koy jaale bu baax. yàlla jërëjëf ñaan leen rek yàlla niital ñu ko jërëjëf jërëjëf.